alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala man qaala bu'istu li utammima al axlaaq sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit yi fi teew ginnaaw ba nu sante yàlla cant gu yelloog jëmam ju màgg ju tedd ji julli ci sangub sang yi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla tabaraka wa taala mu dollee ràng ay maqaama ak ay garaat kii suñu wasila suñu diggante ak yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sayidi cheikh ahmad tijaani sharif al fatimi radiyallahu anhu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu dollee kàttanal dollee wéral dollee guddal sunu fanu xalif général de Tidiane Serigne Babacar si Mansour gannaaw loolu itam ñi ngi leen di nuyu nuyoo bi yell ci sunu diggante te mooy nuyoo bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni wa afshu salaama baynakum te mooy ñu jël jàmm yàlla ak yërmandeem doxale ko sunu diggante te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi fi teew ñi ngi leen di nuyu waaye itam di nuyu imaamu gox bi ñu nekk waaye itam di nuyu chef de quartier bi waaye itam di nuyu sunu sëriñ sunu xarit sunu soppe sunu lépp muy sëriñ alxaaji kaañ yi yàlla dogal ñi ngi fi teew tey waaye teewal fi collectif international des talibé cheikh officiel national ak international waaye itam àndante ak sunu mag sunu xarit alxaaji Madiama Fall di coordonnateur collectif international des talibé cheikh officiel waaye itam ànd ak soxna bint Sëy mu Sëriñ Babacar mu sëriñ Mansour si mu sëriñ Habib di doomi soxna Ndey Marem si waaye itam ànd ak soxna Sooda mu sëriñ Babacar si moom itamit di président bu section bu Tiwaawan ci collectif international des talibé cheikh waaye itam ànd ak soxna Aminata Seck moom it di présidente bu section bu Saint-Louis ci collective international des talibé cheikh officiel waaye itam ànd ak jaam bu xeebu bu doyadi bu ñàkk solo bi ñu koy wax Moussa Gueye te ñu baax ñi jiital ko ci kanamu collectif international des talibé cheikh officiel ginaaw bi ñu nuyoo itam sëriñ alxaaji Kandji ñi ngi nuyu soxnaam yu tedd yu baax yi fa tabarakallahu di soxna Kolle ak soxna Fatou waaye itam di leen wax ni ñi ngi lay jotal sëriñ alxaaji ñu ngi lay jotal nuyoo collectif international des talibé cheikh officiel tey yàlla dafa dogal dafa am benn membre ci collectif international des talibé cheikh officiel muy Serigne Babacar jara di taalibeb man Mansour si borom daara ji mu yar ko jàngal ko tey jii muy sargal man Mansour si borom daara ji loolu moo sabab ñu yabal ñu nu àndal rek ci collectif bi waaye tey fii ay kaar ñoo fi waroon a gaare ngir sëriñ alxaaji kanji ndax alxaaji kanji sëriñ jar na ko te itam yàlla dafa dogal nag ñun collectif international des talibé cheikh officiel muy sunu lépp gannaaw ba nu sëriñ abdul aziz al amin joxe ndigal moom mii dañoo ñëw ba ci moom tàllal ko sunuy loxo mu ñaanal nu te la mu waxoon dara dañu ca kon alhamdulilahi rabbil alamin collectif international des talibé cheikh officiel ñëw nañ fi ngir beesal suñu kóllëre suñu diggante ak nga xam ni moom mooy sëriñ alxaaji Kandji ni ko suñu maam Cheikh Seydi alxaaji Malick waxe ala xablal mawaddati jadidiha fa fi tajdidi naxya kulla xiinin loolu moo sabab suñuy tànk tey fii ci njaareem fekk fi suñu xarit suñu soppe suñu wëllëre di sëriñ alxaaji Kandji waaye may wax ni jeunesse bi nga xam ne ñoom ñooy jeunesse bi nga xam ne ñoo ànd ak sëriñ am ngeen koo xam ni dafa am jomi jaafaru saadiq moom seydina alxaaji kanj waaye itam mu am njàmbaaruk seydina aliyin karamallahu wajahu waaye itam mu doon jukkoy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi koy wax ma jamal léegi ma ne ko sëriñ alxaaji kanj li ma gën a neex ci moom mooy taalibeem yi ñeme nañu ko miin nañ ko waaye yabuñu ko loolu am solo la am njaboot ñu miin la waaye yabuñu la tabaarakallaahu alxaaji yëg nañ ni sa taalibe yi miin nañ la waaye yabuñu la lu waral loolu danga amee jukkoy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kuntu faddan xaliza alqalbi lan fadu min hawlika nooy gi nga nooy ak itam gi nga am yërmande yaatu dënn loolu moo tax sa taalibe yi miin la ñeme la te yabuñu la kon fa tabaarakallaahu sëriñ alxaaji ñi ngi am mbégte ak kontante waaye sëñ alxaaji damay wax ni ñi jàpp ci yow nañu sant yàlla ndax dafa am loo xam ne seydi alxaaji maal dafa wax ni bi adabin tasillu ilal jinaani bi amalin tasillu ilal rahmaani nit ki ci jëf ci ngay àgge ci yàlla subhaanahu wa taala waaye ci ay teggin moo lay dugal aljanna te sëriñ alxaaji am nga yar am nga ay teggin waaye itam sa jëf rëy na ndax lii du lu ndaw kon fa tabaarakallaahu sëriñ alxaaji ñu ngi lay jox nuyoo le collectif international des talibés cheikh officiel di ko jaar ci yow ndax ñun kat ñun collectif international des talibés cheikh officiel suñu sens ci kër maam alxaaji ca kanji maam Thierno kanji mu xaddam bu rëy boobu cheikhul murabbi bu rëy boobu cheikhu tarxiye bu rëy boobu sunu sance ci moom mooy sëriñ alxaaji Kandji moom la ñu yàlla booleel mooy sunu bunt ci moom kon dañuy jël nuyoo bu tedd bu sell bu collectif international des talibés cheikh officiel teg ko ci sa loxo nga joxal ñu ko sa jur yu tedd yi joxal ñu ko itam ñi nga xam ne ñoom nga bokkal kër maam alxaaji Kandji yépp ñu ngi lay wax ni kontaan nañu bég nañu ñu ngi feddali suñu kóllëre suñu diggante ak yow di la yàlla yàlla na yàlla guddal seen fan jërë ngeen jëf ñu ngi niiw képp koo nga xamante ni yàlla dogalal tàbbi nga ci bâche bi di jiital ci nuyoo bi imaamu kox bi di jiital ci nuyoo bi chef de quartier bi waaye rawatina sama xarit sama sëriñ sama goro bi ma teg si tey comme ni nga ko présenté rek man la Ngane Diallo dëkk Kell nekk fee ci Kajoor yaakaar naa ni tey tànk boobu sax laa fi ñëwee ndax yàlla dafa dogal ah, ma fekk ci sama jarbaat di kenn ci soxna sëriñ bi ah, di sama njaboot yaakaar naa ne bis bu mel nii bu amee ah, te gisoo leen ay mbokkam ah ñu bëri war na mën jaaxle kon man tey dama teewe teewaayu kilifa ci kenn ci soxna sëriñ bi waaye teewee teewaayu koo nga xamante ni dafay yëngatu ci Sénégal rawatina ci ñi nga xamante ne yàlla ko boolee ñu maasawu jamono muy jeunesse bi euh, sëriñ Alaaji ma lay seedeel ni euh, njaboot gi kontaan nañu waaw ah, ñun ñi nga xamante ne ñooy yaay Ndeye Fatou bokk ak moom dëkk gis taxawaay bi nga xamante ni am nga ko ci dëkk bi. am ko ci jeunesse dëkk ba bu ñuy ñëwoon fii gis fi leneen dinañ xaw a jaaxle waaye sant nañ suñu borom bu baax a baax a baax a baax a baax ba nga xamante ni sa maam Serigne Saliou Mbacké soxaloon na ko lool lool lool muy am taxawaay ci jeunesse bi bi ma ñëwee ci bâche bi sama xel dafa dal ñaari yoon mooy li ma waxee léegi ci jëmale ci soxna Ndeye Fatou sama xel dafa gën a dal tamit amaat yaakaar ci Sénégal. ni am nañ ñoo nga xamante ni seen pas-pas guddi ak bëccëg mooy ña nga xamante ni suñu borom ñoom la gën a tudd muy ndaw ñi ak soxna yi kon bii ñëwee fii ba fekk délégation soxna yi macha allah gis fi ndaw ñi ñi nga xamante ni li ñuy xeeñ mooy jub rek tegu ci sa loxo loolu bokk li gën a yaakaaru bokk li nga xamante ni dafa gën a dal xel kon kàddu yi ci ñaari fànn yooyu rek lañ koy tënk ndax comme ni ngeen ko waxee léegi guddi na te am na feneen fi koy xaar foofee rek la ñuy tàbbi yokk ñaan di ko di la ñaanal sama goro sama xaaj sama sëriñ ndax dañ laa war a ñaanal li ñuy ñaanale mooy mbooloo mi suñu borom teg ci sa kaw yàlla na ko yàlla teel boppam di ñaan ngeen xale yi ngeen gën a takkuwaat xam ni kii référence la ah ñu ne ñun kajoor dañ ko mënul téye rek saa su ne waaye bu ñu ko mënoon du ngeen jotee ndax amal nañu njëriñ guddi amal nañu njëriñ bëccëg te sama jëmm ji la tàbbi waaw njëriñ loolee muy am ci yéen ñii di sama jëmm ji la la la njëkkee ndax mi ngi koy def ci sama njaboot di ko def ci man moo ko yëg ci zaahir ak baatin kon nag li ma leen di ñaan mooy ngeen xam ne li ngeen yor moom comme ni ko koy waxee ci français rek c'est de l'or sur un plateau d'or wurus la buñ teg ci plateau wurus kon nag nañ ko nañ ko nañ ko buñ ko umpalee nañ koy jëriñoo à 100 pour man de maa ngi ci guddeeg bëccëg kon loole laa leen di ñaan ñu sax ci dàkk di wéyee ci ay ndigalam di bàyyi ay tereem ndax njëriñ kese ña nga xamante ni sañ naa leen ko wax loolee laa leen di dégg kon sëriñ Alaaji ñu ngi siyaar bu baax soxna Kole di wax ni mbokk Kajoor yëpp yaatal gi ñëpp yëg nañ ko ñëpp gis nañ ko liñ leen di ñaan mooy ñuy yàgg lool ci kanam sëriñ bi dem bay fekkee jotaay yu mel nii ah suñu doom yi ak suñu sëti di ko amal. kon jërë ngeen jëf ngeen jëf jërë ngeen jëf ñu ngi baal ñëpp li ah, ñu dese ci bés bi dafa bari waaye nag olof njaay dafay wax ne maa fekke moom kenn du si tëj kenn ci mbir mi bi muy sosu dañ koo fekke daayira bii bi muy sosu dañ koo fekke fa tabaarakallaahu mu doonoon njëlbeen gu metti waaye nag doonoon njëlbeen bu ànd ak dëggu sëñ alxaaji daayira bi bis biñ koy sos la vingt la vingt sept septembre deux mille trois biñ jullee tàkkusaan ba noppi mbir yu bari da daje dañu waxtaan mbooloo mi waxtaan ne nañu fol Abdoul Aziz président ñu waxtaan ne dañu bëgg a defar ay tenue waaye tenue yi dañ koo bëgg a def vert blanc ñu waxtaan ne dañ ko bëgg a tudde sëñ alxaaji am benn mbokk ci mbokk yi ne bu ñu ko tuddee sëriñ alxaaji nañ ko tuddee sëriñ seex Kandji sa boobu sëriñ alxaaji ñëwagul bi sëriñ alxaaji ñëwee ñu ne ko daayira bi daal ñu ngi nii ñun waxuñu dara loo ñu wax rek loolu la ñuy def mu ne bu ma soñoon da jiital Abdoul Aziz Sène mii wallaahi alazim bu ma sañoon itam vert blanc lu ma yàgg a neex la ngeen def ko couleur bi wallaahi lazim mu ne bu ma sañoon itam daayira bi ngeen tuddee ko sama maam Serigne Cheikh Kandji ndax dama am cofeel ci moom cofeel goo xam ne awma lenn lu mu ko dippee lu dul tuddee ko ahib bàyyi Serigne Cheikh Kandji wallaahi lazim loolu nag ñun ñoo ko fekkee daayira bi dox bëri ay jafe-jafe bi muy démarré première gàmm gi ñu njëkk a gàmm dañ may ndawal dañoo may ndawal may ñu benn tànk may ñu ceeb may ñu diw fa tabaarakallaahu jigéen ñi bi ñu ñëwee laaj ma laaj ma yoruma dara ndax boobu élève la ñu laaj ma ba amatuma lu ma joxe ma dem toog sa taatu garab ga di jooy mbokk yi dem sa sëriñ alxaaji ne ko Abdul Aziz de mu ngi jooy nit ñi yaakaar ne ndax at moomu la sëriñ pap ñi nelaw ñu yaakaar ne loolu laay jooy ndekete yoo laaj bu métti bi may laaj te yoruma loolu laay jooy fa tabaarakallaahu ren nag ku ñëw fii sa xol dana sedd ndax a ah, nag yi bari na de wóoru Seex Béthio nag yi bari na de barki na de ku fi ñëw ren gis nga nag yi bari na ganaar yi bari na beñe bi bari na soow mi bari na caakri ngi fi lépp a ngi fi kon nag suñu jooyu yooyee suñu jooy yooyee dañ koy suppi ak cant waaw tey moom dañuy cant lool sëriñ bi waaw tey moom yéen aw leen ku soxorul ne la jaar